C'était ça Alors, le fond nous, de, nous, mon, on va te présenter programme. comme le candidat du développement agricole et industriel. D'une part, mais aussi le candidat des mathématiques. le candidat de la réforme du système de la formation professionnelle li may wax nii mënoo ko def tant que changer woo le système d'éducation système d'éducation li ci manqué mooy science d'abord mathématique wax naa la dans le programme di rek bëgg a réformer may des bourses mathématiques tous les élèves qui feront série S S1 série S2 dañ leen war a jox des bourses de discrimination positive vous savez pourquoi gis nga bachelier yi fi am il moins de 5 pour cent yi am bac S1 man bac S1 laa amoon quand j'étais en terminale bac yooyu nag ak bac s moom mooy les besoins de de de l'économie parce que loolu mooy permettre étudiants yi suñu demee ba am niveau boobu mën a suñu génnee mën a nekk ay médecins mën nekk ay ingénieurs mën nekk yeneen métiers ay techniciens donc système bi en réalité il va falloir faire ce qu'on appelle les états généraux de tout l'enseignement muy depuis primaire ba ba université parce que soo su fekkee ne tu as 80 pour cent de bacheliers yi nekk ay littéraires mais loolu suñu génnee en fait du ñu am di boulot donc loolu moo tax il faut réformer le système mais en cela il faut aussi prof yi jàngale mathématiques yooyu il faut nga trouver un système d'indemnisation mathématique loolu la pays bëri def suñ continuer nii di continuer di former avec très peu de jeunes yi def maths physique chimie les STEM ce qu'on appelle les STEM en réalité le pays va connaître de gros risques d'ingénieurs euh, dans mais mais mais le système euh, la réforme de l'État na Euh, doo ci réformer dara. ah si si si dans le programme j'ai parlé de de réformer la fonction publique réformer le système d'entrée de la fonction publique je parle aussi de de l'évaluation des fonctionnaires je parle aussi euh, de. non la réforme politique de l'État laa wax. pour l'organisation de de l'État. Euh, la réforme politique de de l'État nu muy doxee nii baax na. loolu c'est l'État c'est c'est d'abord les hommes. Euh, ñi nga xam ne ñoom ñoo koy euh, conduire ñi nga xam ne mooy les les gouvernements ñi nga xam ne mooy les euh, ñi koy conduire en fait c'est ça qu'il faut changer avec ay nouveaux gouvernants par exemple soo gisee dans le programme je dis que si j'étais président de la République je pense que je le serai en réalité je vais prendre beaucoup plus de femmes dans le gouvernement je vais prendre beaucoup plus de jeunes